waaw hélas Hadj. une minute rek. Mm-hmm. ma nuyu leen ziar leen. Mm-hmm. baalu ak. àq. Mm-hmm. baalu Sénégal yëpp àq. baalu Sénégal ak. baal Sénégal yëpp àq. semaine bii wala ci weekend bii. sama tur fees na lool. ci lu juróom-ñeenti tu seq mais jàppewu ma ko nattu dama koy sant yàlla ndax man am naa tur am tur ndey ak bàyyi sama doom du Moustapha Diop la tur comme ni ma tuddee Mamadou Mansour Diop am na tur am na turu yaay ma àndaloon defi njombe am na tur ndey am na turu bàyyi moom am na tur ki dee ci seen loxo am na tur am na turu ndey am na tur bàyyi ça fait neuf

wala nga gën waa Sénégal walla nga lebal leen li tax fu ñu la tuddee ñëpp xam la. Hmm. bu la yàlla defalee sutura defal la teraanga nga sos kër sos njaboot yàlla may la fukki doom ci biir doom yooyu mu la may ñëpp nekk ci sa waaw ku nekk di jàng ngay def ci moom yar bi sa baay defoon ci moom. Hmm. yàlla génne ci kenn ku la të. lu mat fukki at nga joytu ko képp koo am. kenn kooku la të. bu defee njombeem. bu fekkee que woo ko ci nattu yi yàlla di nattoo ab jaamam. Mm. ma xam ne doo jullit gor. Mm-hmm. Mm-hmm. assumé toutes mes responsabilités que xale bi def li bon et mon fils aîné waaye moom rek nekkul ci samay doom contrôler comme ni sama papa jàngale yar ma def ci malheureusement damay nangu ne sama dom la mais ma bolé ko ci natou yi nga xamni mom la ma yalla natto ba mu ñimé def man bayam lu mu ñëwut a def. ba muy dem fo xamni ne rakam du fa dem. amul kenn ku fay dem sama ay doom. kon damay japp ni natou la. mu ma yàlla teg. continuer nak di demander la justice. que chacun assume ses responsabilités il a 22 ans. que justice fait son travail. mo continuer aussi di prôner toujours que faw ñu delloo ci waat Sénégal peine de mort man gënuma kenn sama doom gënul kenn bay def naka su dul té te dara du ko ci fekk. ma ngi demander justice def liggéeyam ma ngi demander ñu delloo soit peine de mort mais ma ngi demander itam ni nañu ma baal ma baal ñëpp itam baal naa ñëpp. Mm. parce que tax ma baal naa ñëpp mooy Mansour day day liggéeyi wàcc dem këram toog. uuf ay njabootam nekk dans de très bonnes conditions. Mm. alhamdulilah mm. sant waaye nag doom ju fàqee ko ci man itam. man may bàyyam. waaye doom joo xam ni dëkkul ak yow nekkul ak yow te def nga lépp pour moom. Mm-hmm. <laughs> loolu nga man mm-hmm. moom bu optee leneen nag ñu askanale la ko. nangu naa. merew ma kenn nag. lu ma ci waay tudde merew ma kenn. Mm-hmm. waaye dama ko sante yàlla ndax gënuma waa Sénégal. lu tax fuñ ma tudde ñëpp xam ma. liggéeyalu ma waa Sénégal liggéeyalu ma yàlla lu tax fu ma ñëpp xamee. su ma amee benn doom bu mel noonu dama koy dugal ci. dàmbak nattu yàlla ndax innama amwalukum wa awladukum fitna man nangu ko te sant ko yalla bu baax te demander justice de liggéeyam demander itam ñu dellu ci peine de mort parce que nit di fo du fowee jamais ak bakkanu jàmbur. Mhm. je pense que jarul sax jarul sax commentaire en hein, foofu parce que alaaji mhm. li mu wax tay njëkkee nako ko. wax na avant fi ci teus bi. wax na ko fu ne. yàggul euh, chimère. chumère loolu buñ ko mënoon am rek yàggul toog na fii moom alaaji jël na doomam yóbbu gendarmerie tës bi na toog di ko wax yàggul mhm. wax na ko wala waxu ko boo amoon loolu rek nga may ñu ko rek ay weer ci ginnaaw la je pense yàgg na ko wax may ñu ko na ko jàmbat yàlla mi ñu xam na loolu jàmbatee na ko fu ne lii rek moo ci suñu commentaire nekk jàmbatee na ko fu ne waaw te loolu moom bu la ko ñëpp seedalee moom daanaka yow moom sa responsabilité dégagé nga ko. Hmm. dégagé nga ko koy def jàppale woon xale boo ko juree. ajali ko màkk sax. ngir mu baax. alaaji ajal na màkk 2015 doomam pour mu baax. alaaji day toog fii ne ma sa rakk ja génnee naa ko. ma ne ko lu mu def mënuma lii la def maa jël sama oto yóbbu ko gendarmerie ban ma ko kalaamee. alaaji moo njëkk nekk victime doom ji. ci mhm. leneen ak leneen ak leneen. loo xam mhm. ko wax. mais man man dafa am loolu. donc jarul sax ñu ci ñu dama ko fekkee pour wan la na moom jóoba juba jaanam wàcc na. ànd fii ci otoom fii di waxtaan ci bopp koñ. Mhm. ci bopp koñ. ma ne ko waa sa waay dama mu ne ma déedéet parce que dafa am oto bu ma doom jënd pour Moustapha. laaj ma oto bi lan la. Dodge mi ngi noonu yow gis nga oto bi. fekk naa lépp. bu baax ba muy mottali waa xaalis bi ñun ñaar ñoo ko. loolu kenn du ma ko nettali man maa ko. utal ko bergerie d'une dizaine de millions. dama ne. mais ku bëgg bon nag mënoo ci dara. dama ne. nattu yàlla rek cinq millions pour jox ko nit. muy def la navette entre biir mbuur ak suma nag yooyu te mën ci teg. wallaay pour am si lu mu jàpp rek mën a bàyyi yenn yi. kooku. alaaji gàcce ngalaama waxuñu nag yeneen yi waxuñu nag yeneen yi mais gàcce ngalaama tey yal na yàlla may la xolu muñ rek te ñepp xam nañ ne ah, yàgg nañ ko wax ci tesbi de xalé yi wallaahi ñooy nattu seen wallahi li nga xam da ngay def lo mu wara def rek na def gàcce ngalaama ku la fekk fële deglu la alaaji waxon fan ye ci doom ji tout le monde lo lépp koy def jappelé wo sa doom ba jappelé wo ko de baxna ba baxna jël ko yóbbu ko ñu gars yi redressé la ko moo gën koy bàyyi ci kër gi. jooyloo sa yaay rek. waaw. yàlla musal ci jooyloo suñuy ndey. dafa muy mujj. baax na. lu doon jëlee waaye lu ko dese la. noonu laay. dañu bàyyi nëpp nëppal doom. waaw. bàyyi nëpp nëppal doom mooy dëgg de alaaji donc bu tooñee da teg ci yoon. mooy mhm. yoon de. donc du fooy way juróom. Mhm. wallaahi dëgg nga wax. wallaahi dëgg nga wax laaj. ma dem bii bii ci mujj bii bii maam bii. Mhm. sama doom yàq na oto jàmbur ba nëpp bëgg a daw gaañu ci dem hôpital ànd ak ay copains ñu koy nëpp nëpp li jéem a jël affaire affaire yu guerrier. ñu ngi sama kër. damaa taal sama oto ñu fekk hôpital ba mu nekk. booy bëgg génn rawale ko mën leen aw sama kaw ba noppi. taxaw fa woo ki mu yàq otoom woo gendarmerie ñu jël jël ko jël ko yóbbu. Ah billaahi wal azim bii avant may ñëw fii avant may ñibbisi ñëw jël ko yóbbu gendarmerie mën leen na fay ki mu yàq alalam. Mm-hmm. parce que fekkoon da ko yàq toog ñu négocier ko mais da koo yàq bëgg a daw ba noppi jëli ak gàngam. ne copains ñu koy jéem a protéger. ba ni booy booy gàngi xoolal ku ni ma perme toi yow dugg ci sa. ba kenn ni ma peer. léeg-léeg nga dem ko. damaa taxaw ni du kilifa da bii nga ci mujj bii. non da nga koy wan yoon bi doonte après di nga dem. c'est vrai bi. su ma tàggoon dawal moto. parce que bàyyi bi yóbbu moto su ma tàggoon dawal moto ba ñu bëgg oto jàmm. bu bëggoon toog ma fekk ko fa dinaa négocier mbaa ma fayal ko. mais da koo tàggu teg ànd ak ay copain daw da koo mbëkk yàq alalu waa ji bu noppi. teg gars yi bëgg daw dem. non da nga koy wan ne nii la nii la ñu yare. yéen bien chati bien. voilà noonu lay doxalee xam naa ci lu bari. ci benn fekk fekk. booy yar da ngay yar fekk ay moto ci weeru hôpital ma ni waa jàng fi. cëpp wàcc. ñu ni paa bu Sadik baa ngi. ñu waa daam paa Sadik ñëw na far ci lenn xale yi nag mm-hmm. ñoo sa seen tëwu bopp